asalaamaaleykum mbokk yu ñuy seetaan ci seen plateforme academy mentor euh, dellusiwaat nañ tey ci seen beneen euh, vidéo muy fukkeelu vidéo ak juróom-ñett vidéo numéro 18 ci cours HTML ak CSS tey nag ñu fas yéene jàng euh, lu jëm ci validation ak contact compatibilité wu code HTML yi dañ ci gën a leeral kon ci maanaam biir cours bi donc li jubluwaayu chapitre 18 bi mooy jàng nu ñuy valider code HTML ak nan ngay fexe ba nga am code bu compatible objectif bi nag maanaam li ñu jublu ci cours bi kon mooy ngeen comprendre enjeu yi nga xam ni ñoom ñoo nekk ci développement HTML yi surtout code HTML yi surtout nag navigateur yi ak seen ay version euh, dina ginnaaw bu ñu jallee ci loolu dinañ découvrir lu ñu naan entité HTML ba noppi fàttali kon ci mujjantal gi njariñ li maanaam am code bu baax am maanaam am code bu baax boo xam da nga ba mu leen code bu valide la njariñ lim am ci développement HTML euh, donc web bi nag léegi euh, dafa am maturité maanaam màgg na màggaay goo xam ni développé développé na bu baax a baax a baax a baax baax ndax euh, bu njëkk li amoon mooy dañoo amoon ay navigateur yu bari navigateur ci fàttali mooy logiciel bi ngeen utiliser ngir mën a euh, dugg ci internet bi daal mu leen bi leen affiché seeni page comme ay Google Chrome ak Mozilla Firefox Internet Explorer Safari donc yooyu yëpp ay façon navigateur lañ waaye bu njëkk li amoon mooy navigateur bu nekk dafa doon utiliser norme boppam nga xam ne am na sax ay balises yoo xam ne navigateur bi daf koy comprendre beneen bi bañ koo comprendre donc kenn ku ci ne loo doon bëgg a afficher yaay xool par rapport ak sa ay norme nan ngay def ba afficher ko kon da doon gis pour nga bëgg créer dara mën nga utiliser ay balises yu bokkul ngir navigateur bu ci ne mën ko afficher comme ni nga ko bëggee donc yooyu yëpp ay jafe-jafe la parce ci ci ci ci navigateur yëpp daal donc léegi nag web bi dem ba avancé avancé boo xam ni ak version bi ñu toll nii ci HTML mooy cinq version cinq bi ak version trois bu CSS léegi navigateur yëpp daanaka dañuy comprendre maanaam lépp lu loo xam ni balise HTML rek dañ koy comprendre automatiquement bu mën ko interprété kon loolu lu mat a bàyyi xel la moo tax léegi nag dafay baax yow mi nga xam ne yaay codé kon. ngay def le tout ba sa code bi nekk code bu valide code bu baax boo xam ne tu euh, am benn erreur dañuy commencé kon par joxe ay exemple ci entité euh, su ma bëggoon par exemple euh, créer benn paragraphe boo xam ne dama ci bëgg ci biir texte paragraphe bi ma def ci benn balise HTML par exemple waaw mu ñu créer paragraphe ba ba noppi maanaam li bëgg mooy ci biir paragraphe bi euh, ci biir paragraphe bi ma wax ni par exemple la balise qui permet d'insérer ou bien la ligne la balise qui permet d'aller à la ligne en HTML c'est BR c'est ma def bëgg def balise BR donc nga xool ne fii BR bi dama bëgg mu bokk ci sama biir texte waaye ma seetlu ne su ma ko defee nii HTML euh, du ko considérer comme texte waaye daf koy considérer comme balise kon li muy def mooy dafay bind la balise qui permet d'aller à la ligne C après mu fu mu dem à la ligne mu dem à la ligne daa bëgg mu afficher ma BR lii nii mu defal ma signe inférieur defal ma BR e après dem signe supérieur donc kon signe inférieure bi il faut que ma convertir ko donc ni ma koy convertir damay def E commercial E bi après ma def euh, LT LT def virgule donc li lay remplacer par signe inférieur donc signe supérieur bi aussi ma remplacer ko par E commercial GT point virgule voilà donc gis nga lii mooy remplacer inférieur après mu def balise BR après remplacer li par signe supérieur donc nga gis ne su ma enregistré xaar ñu enregistré fichier enregistré sous ma tuddee vidéo html vidéo html wala cours html donc ñu ubbi nga gis ne gis nga fii interpréter na ma ko donc dafa jël maanaam signe yooyu ma signe maanaam li remplacer inférieur bi donc mu def ko inférieur li code supérieur mu def ko supérieur donc du coup da ngay daal di am texte bi normalement gis nga donc ñu xaw a wàccee tuuti page bi pour ngeen gis bu baax donc boo xoolee ci suñu résultat bi gis nga résultat bi donc fii dama def la balise qui permet d'aller d'aller à la ligne donc loolu yëpp bindaat na ko fii la balise qui permet d'aller à la ligne en HTML c léegi nag lii ma def nii alt lt point d euh, point virgule moom la remplacer par signe inférieur après br bi da ko bindaat donc ma defaat e commercial gt point virgule mu remplacer par signe supérieur kon chaque fois soo bëggee bind soo bañee mu interpréter balise bi donc da ngay utiliser code bi donc ñu joxe beneen exemple ma créé beneen paragraphe boo xam ne damay bëgg bind par exemple damay bind je mets Sidi et Rama donc e commercial bi du ko mën a interpréter ndax lii e lay tekki donc pour mu bindal ma lii il faut ma jox ko code bi nga xam ni moom moo koy remplacer code bi nag mooy nga def e commercial AMP donc suma ma enregistré ma actualiser donc gis nga indil na ma egg mais boo defoon e commercial kese donc kon moom du ko e, reconnaître beneen bi nga xamante ni donc moom mooy e, bu mujj moy soo bëggee créer ay espace par exemple ñu créer benn balise slash p tëj balise bi les enfants les enfants vont a l'école léegi ma bëgg mu créel ma e-, ñetti espace par fii les enfants après ma créer ñetti espace donc espace bu njëkk bi donc da def e commercial def n b donc lii mooy li permettre nga mën a euh, nga mën a créer espace mën nañ ko copier ñett yoon par exemple pour am ñetti espace coller coller wat donc euh, enregistré donc boo actualiser donc gis nga fii donc am na espace ñetti espace donc loo gën a mën a dem mën a gën a yokk espace yi donc chaque fois boo bëggee créer espace force espace rek code bi mooy code bi tax na mën a am espace ci biir balise donc gis nga espace bi kon gën na yaatu kon loolu mooy euh, liñ leen doon expliquer ci wàllu maanaam lu ñuy wax euh, entité HTML yi donc kon ngeen jàpp rek ne signe inférieur nii lañ koy interpréter signe supérieur nii lañ koy interpréter bu dee e bi e commercial bi nii lañ koy interpréter bu dee espace ni lañ koy interpréter donc yooyu mooy li ñu leen indil yu jëm ci entité HTML léegi nag tester euh, valider éditer code bi maanaam code bu nga am code bu valide lu am solo la ci HTML ndax euh, bu njëkk loolu amu amul amutoon ndax euh, kenn ku ci nekk maanaam ku ci nekk yaa doon xool nu mu la neexee navigateur yeeg yëpp rek nga xool nu mu la neexee nga créer ses noonu normes léegi nag dafa benn entreprise bu tudd W3C. donc waa W3C ñoom ñooy ñoom ñooy gérer lépp lu jëm ci yokkute langage HTML ak CSS maanaam seen évolution waaye ñoom ñooy gérer lépp luy norme web bi tamit donc W3C ñoom ñoo koy gérer ñoom nag dañu mettre à notre disposition maanaam dañoo dañoo créer ay ay ay validateurs de code maanaam loo xam ne foofu ngay jaar pour xool est-ce que sa code HTML ak CSS ay code yu valide lañ wala valide donc loolu pour nga dem ci c'est très simple nga dem ci internet bi nga tapé validator point w3 point org donc li mooy lien bi nga xam ne fii ngay jaar pour mën a tester est-ce que sa lien euh, sa sa ay code HTML ak ay code CSS baax na wala baax est-ce que ay yu valide lañ donc fii par exemple sa site internet bu fekkoon da am site bu tudd euh, par exemple su ma bëggoon tester web damay dugal fii URL bi def 3w seneweb.com donc soo ñëwee nga vérifier après mu wax la ndax seneweb euh, ni ñu bindee maanaam code HTML yi ak CSS ndax baax na wala baaxul donc bu dee am na yeneen onglet par exemple fii bu la neexee nga jël fichier boo xam ne ci sa ordinateur la nga nga dem vérifier ji par exemple bu boobaa da ngay daal di ñëw par exemple jël vidéo 18 nga daal def check nga muy vidéo 18 point html mi ngi xool après ci daal lay génneel résultat yi gis nga erreur yi am ak yëpp daf la koy daal di génneel donc euh, beneen bi nga xam ni mooy pour par exemple bu fekkente ni CSS nga bëgg a vérifier ndax sa CSS bi valide na am na beneen lien boo xam da ngay def gi g gi gsaw point w point org donc fii itam boo ñëwee gis nga fii beneen site la boo xam ne donc daf lay permettre nga mën tester sa CSS ndax valide na wala validul kon ngeen jàpp ñaari lien yooyu xaaral ñu bindal leen ko fii mu leer pour nga vérifier o tester sa code HTML ndax valide na da ngay dem ci validator point w3 point org donc loolu mooy euh, lien mooy lien bi moo si moo nekk nii donc bu fekkente ni euh, pour CSS bi la nga def gi jig saw point w3 point org donc yooyu mooy ñaari liens yi nga xam ni mën ngeen ko utiliser pour tester kon seen ay kii kon loolu ñu leen indiloon tey ci seen 18e vidéo mooy vidéo numéro 18 ci cours bi di HTML ak CSS ñu leen jox daje kon ci fan yi incha allah ci seen beneen vidéo